يا طبطب ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه انا ازعل اولع أه ما هو كل همه الزير دي طبطب 跟他们，对，问龙男了。 ci loo nekk gerte yu tey yaa am jàmm naka bagaay ci loo nekk yaa nekk nii sa dëggee gerte namu naa de maa la raw yéen ci kaw gaa bàyyi ñu ak dara yi bàyyi ñu rek bàyyi ñu ma toog nii na mooma gaa mais namu naa mais bàyyi ma toog nii alhamdulilah dama ñëwoon tey seesi la yaa ngi leer de mais xam nga ne foog ma nekk ko am élément yu mel nii foog mu leer mais dama ñëwoon tey seesi la waaw mais mais nag entreprise bi nag sant alhamdulilah nag élément bàyyi ngooy góorlu sonn na tax sax ma ñëw dalu nii mais gars yu ci mais da ngay sonn da ngay sonn mais yow mais yow xam nga sama ginnaaw yaa ngi fi nekkal foog nga sonn mais xam nga ma la neex ba liggéeyal koor gi xaw métti mais non yow jàmbaar nga mais tey nag awu toogaay dafa am benn. ñemewoon sama papa bu am bu baaxul ci man. Ah. naa ko pas awu. moom laa ñëwoon seet si tey yóbbu ko sukoy koor. pas awu sonnoon ci man waaw. Fula sa dëkkandoo la fii. ah ok papa abu neex. te mu gàtt nii te te sax solo. bëri solo bi. paa boobu sama paa bu baax la sama paa la xam nga ko. xam naa ko ah yooyu da ngay xam ñu baax ñi. bilaay sama paa la sama ñaar la kooku kooku amal naa ko njukkal te moom laa ñëwoon seet si am lu mu ko jox. ah bon waaw waaw mu ngi dëkk fii sama ginnaaw nii rek. ah ko dañ fee ànd ñu seeti ko. loolu nga bëggoon instant yow defoo dara waaw yow li nga bëgg rek laa def ah loolu la ñuy def kon même ma summeeku ñu dem sama waa ji kontaan naa ci yow waa ji yow leer nga de doogal ma summeeku ma dugg ci biir summeeku waaw incha allah maa ngi lay xaar incha allah merci beaucoup xaaral ma ñëw gën a xaar de sa sama café moom day gën a yaatu rek macha allah يطبطب ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه انا ازعل اولع ما هو كل همه الزير دي

naka koor gi. koor gi gis naa yaa bu baax. Ah, bi. ah hmm. moom ma dénk entreprise bi. bi ma la doon wax noonu fa laa nekk di liggéey. <laughs> waaw sànq nag dafa ñëw ba xam nga paa ma ne ko paa naa ko bu baax sama paa la. waaw ma ne woon naa ko andi mu ñëw xool la. ñàkkul ne nag miinoo ko parce xam naa ne mi ngi jógee la woon. waaw xam ne ko doon Paa Ndiaye. Feeraay Paa Ndiaye Paa Ndiaye. Paa Ndiaye ci ginnaaw engrais bi rek boobu koñ bi. kon yaay doom bi doon jàng école. maa ngi doon jàng. xoolal yàlla yéen xale yi léegi xale yi léegi ci laa bitim réew. dëgg la dëgg la maa ngi doon ñëw semaine bi paase. waaw waaw foofu mu ñëw seet si la. ah yéen parce que boo ma nekkee boo ma nekkee ndaw yaa ma moom mooy gën a motivé ba nga xamante ne fi ma yegg tey jii. suñu koor boo xamante ne nii. ko ma soñoon nag mu nekk ay millions millions ma ñëw teg yaa ngi suñu kanam mais dama ñëwoon nag xeeb naa ko lool ñëwoon jox la ko ndeysaan tout ça nga barkeel la ko sama parce que sa conseil moom dimbali na ma dimbali ah moom. doom kontaan naa si yow. ah parce que da nga di doom boo xamante ne. macha allah doom bu am yar nga. dëgg jamono yi nga fii nekk maa ngi koy fàttaliku. mais da nga di xale boo xam ne bu neex a waxal. dëgg la bokkoo ak xale yi tey sooy wax ñuy sànni loxo di ciibatu di sànneexu. Ah, moo tax yow li nga am tey jombul la. parce que jamono yi ngay jàng da nga doon góorgóorlu tey yaa ngi nii macha allah mais xale da gaaw màgg. dëgg la ah Europe lan ngeen fay lekk nag. mais da ngaa kii kii kii sama sama sama élément la. xaaral sama moom mooy moom mooy sama bi. nga dégg sama entreprise bu yëpp moom def lu baax rek am solo. dëgg la bu demee woon neneen mën na ñaaw. gis nga tey li yàlla defal. lii naan njuuma ah. noo sa mën a wele. waaw ah, waaw noonu la daal kii ku baax la. ku yaru kii du xale bi nga xamante ne xale buy dóor ma kii du dóor mag de kii day toppatoo mag dalal mag kii du dóore de comme yooyu xale yi def ay mbëri dof yooyu mais ku jàppaleen ma ko nga dimbaleen ma ko xamal ne kii nii loo ko dimbale rek mën ngaa dimbale jërëjëf doom moom am benn problème moom sama sama wëlëre la ji bañ nekk tout temps dëgg la tey ba yàlla def ma dem bitim réew ma bàyyi ko entreprise bi mu géré ko yor ko yor bu ma nekk fee sama xel dafa dal lépp loo xamante ne war naa ko féetewu fii rek moom féetee noonu ko mm-hmm. kon maa koy sant di ko gërëm bu baax a baax di ko wax jàpp rek na ko gën a jàpp bu baax a baax jàpp ko ak sa fukki loxo papa moom sama wóllare bu baax la mais nag xale ah, ah, nii la mos a mel nii la mos a mel nii la mos a mel moom day am jàmm nag nii la mos a mel loolu baax la nga ñaanal ñu bu baax euh, parce que moom ci boppam wallaahi bi mu ñëwee ba tey mhm. xelam ci yow rek la ne mu ne du def lu dul rek seetsi la pour jéem la dafa teraanga la nga doon def ci moom seconde ak papaam mhm. mu doon lu yàgg tay lool moko motivé wat tay ba mu war na mëna ñëw sét ci tay ba di la wax rek nga ñaanal ñu bu baax baax nga baña fatim nak sama mbeur ni ya ko ñaanal bu baax baax day door mak wax ak ñu ñëw def bu baaxul ya ya xamul te ngeen def ma sha Allah day yoy jëru nga ci def ah baax na jëge euh, jëm baax on da bu baax sa baax ba la nga ngi bi jëge way la ila mo de waru na leeral par rapport ak euh, diine ni nga xam ni ñu lay euh, gisee yenn comportement yi mbay yenn jëf yi surtout ci weeru koor gi ñu nekk nga xam ni ah tabaarakallahu yàlla dafa ne dimbalante leen ci mbaax ak ragal yàlla bu fekkee suukar koor nag dañ ko defee ci cadre taawunu alal birri wa taqwa wala taawunu alal ismi wal mooy dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla mbaa doomu aadama lépp loo ko tane nga dimbalee ko ko su boobaa dafay baax lool ndax yàlla nee na képp ku jox nit ndogu suukaru koor la xar-xaru tàndarma la dinaa la jox ci ndogu yu aljanna yi waaye bu ñu ko def ngir yàlla puukare rek mbaa amaana sax sa waajur amul ndogu kër ga nga dem xale bu jigéen bi ngay bëgg mbaa xale bu góor bi ngay bëgg nga yóbbul ko te or ko sa yaay mbaa sa papa bi nga bàyyi kër ga it amu ko sare ak giseewu ko noonu waaye bu dee nag da ko def ngir yàlla nag nga tane nit ki dimbalee ko ko nekk lu baax a baax la يا طبطب ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه